jëf ya sar bi ñu rëccee ñu yëg ne dun baa ngi tudd malt te waa réew ma won nu laabiir gu ràññeeku ndaxte taalal nañu nu safara ganale ndax taw bi soob ak sedd bi pool nag di format di ko def ca taal ba jaan na ca mële ndax tàngoor wa taq ci loxoom bi waa réew ma gisee rab wa weq ci loxoom nag ñuy waxante naan ci lu wóor nit ki reykat la te bi mu rëccee ca géej ga sax ndogalu yàlla mayu ko mu dund waaye pool yëlëb rab wa ca safara sa te wàññiwu ko dara nit ñi di xaar mu newwi mbaa mu ne dal dee waaye bi ñu négee lu yàgg te gis ne dara jotu ko ñu soppi xel ne kii yàlla la amoon na nag ca wet yi ay suuf yu doon moomeelu ku tudd Publius di kilifaak dund ba mu teeru nu ganale nu ngan gu rëy diirub ñetti fan fekk bàyyi Publius dafa tëdd ndax ay tàngoor yi yaram yu koy dikkal ak biiru taññ Pool nag dem seeti ko ñaan ci yàlla teg ko ay loxoom mu daldi wér ci kaw loolu jarage ca des ca dun ba daldi dikk amaat wér gi yaram ñu tëral nu ay fan yu bari te bi ñuy dem ñu jox nu li nuy soxla lépp ba ñu fa amee ñetti weer ñu dugg ca gaal gu lolli ko ca dun ba daldi tàbbi ca géej ga gaalu dëkku aleksandiri la woon te yor xàmmeekaay guy nataalu kastoor ak poluks noonu nu teer dëkku sirakus toog fa ñetti fan ñu jóge fa leeru tefes ga ba agsi rasiyo ca ëllëg sa ngelawu sudu daldi jóg te ca ñaareelu fan ba nu teer pusol gis nañu fa ay mbokk ñu ñaan nu ñu toog fa ayu bés noonu nu dem rom sunuy xabaar law na ba àgg ca mbokk ya fa dëkk noonu nu gàttandunu ba ca pencu apiyos ak bereb bu ñuy wax ñetti añukaay ya bi leen pool gisee mu sant yàlla daldi takk fitam bi ñu dikkee rom nag ñu may pool mu dëkk fa ko moom ak xarekat ba koy wattu bi ñetti fan wéyee mu woolu njiitu yawut yi dëkk ba bi ñu dajaloo nag mu wax leen lii mbokk yi jàpp nañu ma ci yerusalem jébbal ma waa Rom fekk defuma dara luy suufeel sunu xeet mbaa luy juuyoo ak sunuy aaday maam waa Rom nag seet sama mbir te bëgg ma bàyyi ndaxte toppuñu ma dara lu jarde waaye bi ko yawut yi bañee fas yéene naa dénk sama mbir Sesaar fekk ba awma dara lu may taqal sama xeet moo tax ma ñaane gise ak yéen nu diisoo ndaxte yaakaaru bànni Israyel moo tax ñu jëng ma bi ñu ko déggee ñu tontu ko jotuñu benn bataaxal bu jóge Yude ci sa mbir te kenn ci mbokk yi fi dikk jotaliwul mbaa mu seede ci yow lu bon waaye bëgg nañoo dégg li nga gëm ndaxte xam nañu ne tariixa booba kenn jubluwu ko fenn noonu ñu di ko bés te ñu bari ñëw fekk su ko ca néegam mu di leen jàngal suba ba ngoon di leen dëggal lu jëm ci nguuru yàlla ak ci yeesu tukkee ci yoonu musaa ak ci yonent yi di leen jéem a gëmloo ñenn ñi nag gëm li mu wax ña ca des weddi ko ginnaaw mënuñoo déggoo ñu bëgg a tas waaye bi ñu laataa dem pool teg ca wax ji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 ñu waññeeku ci man ma wéral leen xam leen nag ne xabaaru mucc gi yëgal nañu ko ñi dul yawut te ñoom dinañu ko déglu noonu diirub ñaari at pool dëkk ca kër ga muy fey di fa àggale ñépp ñi koy seetsi mu yégle nguuru yàlla di jàngale ci mbirum borom bi yéesu kirist ak fit wu dëgër te kenn terewu ko ko